wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba li naal yépp yéene ko liggéeyal ak Cheikhul Khadim mu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal njabootu sëriñ Touba gi yépp ak kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi di nuyu kilifa gu baax gi nga xam ne moom la fekk ci tey muy sëriñ Maam Baara Mbakke sëriñ bi noo ngi lay ziyaara bu baax di la ñaanal yàlla <clears throat> liggéey bu réy bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal lislaam di ko liggéeyal sa maam Cheikhul Xadim yàlla sunu borom kàttanal la te wéral la ba li nga ci yéene yépp nga defe ko ni mu ko bëggee ci barke Xaadimu Rasuul di nuyu bokki topp bi yëpp noo ngi leen di ziyaara bu baax di sant yàlla ci tawféex ji mënu defal ba ñu ñëw ci dëkk bu sell bi fekk leen fi te lépp mu amee ci jëmmi sëñ maam Baara Mbakke mu baax mii nga xam ne dégg ngeen kàddu yi Cheikh Mouhamadul Muntaqa daaneel léegi ci vidéo bi ñu doon seetaan ci dalale xel ci jëmmam ngir taxawaay bi mu taxaw taxaw ko ci tool bi nga xam ne mooy toolub sëriñ Touba bii te mooy lislaam taxawaay bu rëy bi nga xam ne am na ko ci ñaan yàlla suñu borom dëgëral ko bu baax a baax te yàggal ko sant nañu sunu borom it bi mu nu mayee tawfiix nu ñëw ci béréb bi nu yooyu yëpp maa ngi koy jaarale ci loxoom. sant sunu wëllëre bii di sëñ Galas Njaay bu ko defee moom it moom it gën a xam jëwri nii kër gi kenn ku ci nekk la cay sa cër ci ab nuyoo bu ma ko tegee ci loxoom man ma ko jàllale ci ñoom Cheikh Abdoul Aziz noo ngi leen di nuyu baax Jóob nuyu sunu mbokk mi nu feggool nga xam ne yàgg nañoo daje ci jataay yu mel nii sëñ ma Sàmba moom it di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla guddi gii nag day guddi gu mag goo xam ne dafa dëppoo ak doxinu sëriñ bi muy guddi goo xam ne borom bi subhanahu wa moo ko tànnal xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di guddi goo xam ne moo gën junni weer war a toll ci juróom-ñett fukki ak ñett te loola lépp yàlla xaroo ko xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mel ni it guddi gi weer wi lépp day ngëneel ci la alxuraan wàccoon moom alxuraan mi nga xam ne ci la sëriñ bi nekk mu bëgg a waxtaane tuuti nag ci diggante Cheikhul Xadim ak alquran ndax guddi gi ci la ko sunu boroom wàcce woon inna anzalnaahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul min alfi shahr boroom bi subhanahu wa taala moo ne moo ko wàccee ci guddig laylatul xadr laylatul xadr nekk ci biir weeru koor di weer woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa dana ñetti xaaj la fukk yu jëkk yi yërmande yàlla fukk yi ci digg bi di ak njëggalam fukk yu mujj yi di goreel ci sawara muy weer woo xam ne lépp yiw la lépp xéewal la lépp ngëneel la loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne law taalamu ummati ma fi ramadan latamannaw an takuna sanata kullaha ramadan sama xeet bi de buñ xamoon li ne ci weeru koor dañuy xemmeem at mépp nekk koor yàlla da ci nangu ñaan yi di ci dajale jëf yi di ci jéggale bakkaar yi kon weer la woo xam ne léppam nga neen la ci la guddi gi nekkit ndax ku ñuy wax salmaanul farisi nee na xaatabana ba sallallahu alayhi wa sallam fi axiri chaaban fa xaal qad adallakum chahrun azimun chahrun mubarakun jaalala siyaamuhu farida wa qiyaamuhu tatawuan fihi laylatun xayru min alfi shahri yonent bi sallallahu alayhi wa ku ni wax salmaanul farisi nee na yonent bi dafa waxtaan ak ñoom ci bis yi mujj ci weeru baraxlu na leen weer wu mag a ngi leen di dëgmal weer wu tedd weer woo xam ne woor bëccëg yi farata la naafile guddi ya di coobarewu yàlla def na ca biir weer wa guddi goo xam ne moo gën junni weer muy laylatul xadar ci la alquran wàccit shahru ramadan alladi unzila fihi alquran ci la yàlla wàcce alquran alquran moomu nag dafa am diggante bu rëy am cër bu rëy digganteem ak Serigne Touba ndax jëmmi alxuraan dañuy wax ne bu dee ci jëmmi jullit ñi ñoom ñëpp àmma la ci ñoom bu dee ci jëmmi awliyaa ulaahi na xaasa lay doon te mooy almarjaatil ulyaa mooy delluwaay bi gën a rëy ci mbooleem xeeti dundu doomu adama moom alxuraan moo tax borom bi wàcce ko mu nekk tibuyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahma wa bushra lil muslimin alquran mooy leeral lépp mooy jub gi mooy yërmande yàlla mooy mbégteem mboolem jullit ñi mooy yoon wi nga xam ne it moo gën a jub ci jëm ci borom bi subhanahu wa taala inna hadha alquran yahdi ti hi aqwam kon ku ca jaar moo lay wommat moo lay yóbbu fa nga jëm alxuraan moomu nag nekk téere bu rëy bu dajale lépp Sëriñ Tuubaa ni mu nekkee xaadimu rasuul la nekkee xaadimal kitaab day liggéeyal ndax dafa tërkiis dundam gépp ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye liggéeyal yonent bi ak alxuraan nga xam ne kaana xaadima lil kitaab wa sunna daf doon liggéeyal alquran di liggéeyal sunna nekkoon ku xér nag ci alquran moom Sëriñ Tuubaa ci moo xam xifzan wa tilawatan wa rasman wa jam'an wa takriman wa riayatan li ahlihi wa amalan bi ahkaamihi dafa nekkoon koo xam ne dafa xéroon ci alxuraan benn ci wattu ko wala di ko jàng wala di ko bind walla di ko bindlu walla di ko dajale ak waggar ko ak sàmm ko waaye sàmm ñooñ alxuraan ba nekk koo xam ne ku ràññeeku la ci wow melo ak jëfe mboolem atte yi nga xam ne jëmmi alxuraan daf koy atte nga xam ne jëfi ñooye rek mooy nekk ay jëf yi dem ba nekk ay doxinam alxuraan moom nga xam ne ca la jeexal dundam tey mooy trois ans mooy patrimoine bi gën a rëy bi nga xam ne ku koy donn ca loola nga koy donn mooy ndàmmam mooy darajaam xiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi sa sidqi loolu it la denc xabatu rabbi wa rasula wal kitab mustaghniyan an ilxisaabi bi sawab denc naa yàlla yonente bi alayhi salatu salaam ak alquranul karim loole kon ngëneel la fonk gi mu fonkoon ñooñ alquran yonente bi alayhi salatu salaam dafa waxoon ci xadis boo xam ne anas moo ko solo mu ne inna lillahi ahliin min annaas xaalu man hum ya rasulullah xaala ahlul quran hum ahlullah wa xaasatu yàlla dafa am ak njaboot ñu ne ñan ñooy njabootu yàlla ci kaw suuf ñu ne njabootu yàlla ci kaw suuf mooy ñooñ alquran ñooñ alquran ñooy njabootu borom bi subhanahu wa taala ku leen teral yàlla teral la ku leen doyee dalit yàlla doyee dal moo nekk ndonoon sëñ Tuubaa na kenn du ko donn ci wurus kenn du ko donn ci xaalis waaye ci lan lañ koy donn bi xidmatil ki bi xidmatil quraan aw bi xidmatil hadis bil quraan kitaabi ak bi xidmatil quraan yi bu ci nekk am na waaye bi xidmatil kitaabi wal hadis yi yadbutu laa bi dahabin mawrusi sëñ Tuubaa nee na kenn duma ma alal wala wurus wala xaalis waaye ñu ngi may donnale liggéeyal alquraanul karim alxuraan ci dundam nag yàlla da ko cee may ay jagle moom Serigne Touba ndax boo tàmbalee ci maam maaram maamam maam Balla maamam sëñ Morante Seli way juróom ñooñu ñëpp dañoo wattu alxuraanul karim boo dikkee ci wàll geneen gi soxna Assawaalo mii maamam ak soxna Jaaratullahi maam bu Bousso ñoom ñëpp dañoo wattu alxuraan kon moom. ay maamam niti alxuraan lañu fekk na fi kon bii a muy jëmmi environnement xam ne moom la sëñ bi euh, jaar ñi fi fekkoon ñëpp ñooñ alxuraan lañ moo tax kon bi mu ñëwee yitte jim ci am ak doxin woow it am lu baree bari loo xam ne may na ko ci biir téere boobu di téere borom bi subhanahu wa taala euh, alxuraan moom mu jëloo it moom sëriñ bi mu nekk léppam nekk ab yëngoom nekk dalam nekk doxiinu biiram nekk doxiinu bitteem waxtoom yépp di alxuraanul karim foo ko fekk it ci alxuraan ko koy fekk mu feeñ ci biir ay mbindam feeñ ci biir ay doxiinam mu melal nu nag moom sëriñ bi tedd ngay alxuraan ak wàccuwaay bi mu am ci dunduk jullit bi xam ngeen ne borom bi dafa waxoon ne dalikal kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqin mooy téere bi amul benn sikk mooy téere bi nga xam ne it moo di ak jub ñeel way ragal yàlla yi di téere boo xam ne téere yi jiitu woon di téeméeri téere ak ñeent yëpp alxuraan moo leen dajale alxuraan it moo atte ñetti jamono yi yi wëy yi fi am yépp muy ba wëy ak bi teew ak bi ñëwagul moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne kitaaba rabbi innaka alkitaab wa fiika xaala dalika alkitaab muy laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin haaza kitaabuhu jamiica maftaraq min kutubin man madaw bayaanan qad faraq mbooleem la jiitu lépp téere yi jiitu woon nga xam ne diggante injiil ak zabuur ak tawreet ak furqaan ak ca Chicha la wàcc ca Idrissa ak lépp dañ koo dajale mu tabbi ci biir alxuraan nga xam ne euh, jamaa aw xaaza kitaabuhu jamia ma farax min kutubi man ma daw bayaanan xat farax waaye ma mada wa ma xaana wa yati bihi la aqwama sëñ Tuubaa na euh, jëmmi alxuraan moo dajale ñetti jamono yépp lépp lu lëntoon it alxuraan moo ko leeral yakshifu kulla ma anil qalbin baham li kulli muttaqin yasuuhul waham jëmmi alxuraan moo leeral la way lépp nekkoon melo mu ne alxuraan nag wal huda wa siraatul mustaqim lana fa kullu man aaqahu laqa shaqawat alxuraan mooy téere bi mooy jub gi te mooy yoon wa képp ku ko won ginnaaw sëñ Tuubaa na faw nga dajeeg texee di mu ne ndax yii la alxuraan dajale amrun wa nahyun wa waadun wal waidu maa qad usbitat fihi irshadun li xayraati digle ak tere ak digéeg dële la alxuraan boole ba noppi saxal ay ndénkaan yuy jubal nit mu ne nag waman yamil anhu fi l awqaati mu'tazila fa innahu saddahu kasru razilaati sëñ Tuubaa ne ne koo gis mu woon ginnaaw alxuraan nee na xamal ne bari bakkaar képp ko gàllankoor ndax juróom-ñaari jikkoo ngi nii yoo xam ne wala juróom-ñaari melo yooyu kum daje fi yow sëñ bi nee na doo mën a bëgg alxuraan doo mën a def ci alxuraan yitte muy danbun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunia timaadun lil xaliqaati kadaka dox fu yaqinin wa sadisuha wa sabbauha bi takriri bi tabaati sëñ bi ne la bakkaar ak rëy ak nuujar lu ci am pox ak bëgg adduna ak wikiirlu ci nit ñi wéeru ci ñoom ak néew yaqiin moo ko juróom-benneel mu ne juróom ba nag mooy bari ay bidaa kon ndeke gàllankooru léegi-léegi nit ci alxuraan mooy bari bàkkaar dana ko tënk banam war a doxe ci alxuraanul karim du ko mën a doxe ci alxuraan téere boobu nag di alxuraan sëriñ bi am yu bari yum ci leeral mu ne fa man lam yakun dahran bihi daa tamassuki faqad qaadahu iblisu man lam yasal xibbo képp ku jàppul ci alxuraan kat saytaane iblis ci boppam moo lay wommat moo tax moom bi mu jógee dane maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil xaaidi al basiri al muin ci alxuraan laa jàpp nga xam ne alxuraan moo koy wommat ni silmaxa di def ab tuumam jox ko njàccaar moom alxuraan moomu la def moo tax mu ne nag képp koo xam ne nekkul di jàpp ci alxuraan faqat xaalahu iblisu man lam yasal xibba iblis a koy wambat nga ne ci nekk it ndeke alxuraan day may nit ak ubbeeku ak jege yàlla ku bëgg a jege yàlla am fatxo it da koy jàng kitaabun azizun laa yuaarihi aabidun wa yatluuhu illa waxta wal fatxa wal xurba sëñ Tuubaa na képp koy sàmmonteeg alxuraan faw nga am jege yàlla waaye faw it nga am ak ubbeeku loolu mu jàngale ci téere bi it doxul nag digganteem ak li ko téere bi defal moom ci boppam moom alxuraan mu bëggoon ko ba bëgg ñoñ alxuraan mu ne kitaabun bihi masattu mustaghniyan bihi gariban wa ansaanil musibaati wal kaama sëñ Tuubaa nee ba ma wéetee ne ca nasaraan ya kenn ku may wéttali gisuma ko jëmmi alxuraan ba ma fàttali woon métti di ak coono yee te ba ba mu fay nekk di wét amul ku koy wéttali ba muy dem di tukki yi àndut kenn ku dul alxuraanul karim nga xam ne rafiix yi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaabuhu fi lbahri xiina abul sëñ Tuubaa na ba may laxas di dem ci tukki bi di liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jëmmi alxuraan ci boppam laa àndal ndax alxuraan nag maa bëgg ànd ak moom ba tax ma ne maay ànd ak moom sëñ Tuubaa ne ne déedéet alxuraan ne yonent bi sallallahu alayhi wa def yonent bi moo dem ci yàlla na ko Ahmadou Bamba mii laa bëgg mu doon jëwri sama tool bi yonent kon moo def demande raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu abdullah yonent bi ci boppam moo sàkku ci suñu borom man sëñ Tuubaa ma nekk xaadimam alalladi talaba kawniya alqadim lahu salama dil bariyati alxadim kon yonent bi sakku sakku waaye ni yonent bi sakkoo ma nekk xaadimam nag sëñ Tuubaa nee na jëmmi alxuraan it noonu la sakkoo ànd ak man alxuraan ci boppam bi may laxas di jëm ci géej gi moo dem na yàlla boole mag Ahmadou Bamba ba ma fi bàyyi kon raamal kitaabu kawnahu ma'i bila tafarruqin wa umri qad qabila alxuraan moom nee na naa taqoog sëñ tubaa doon tàggoo moo tax boo gisee wàccuwaay bi alxuraan am ci sëñ Touba ak ni sëñ Touba def alxuraan ba mu wàccee ba léegi ca makkatal mukarrama bi su tey bii ni sëñ Touba def alxuraan kenn musu ko def alxuraan karim kon alxuraan moo sakkoon ci moom loolu alxuraan it sëñ Touba lañ ko dénk sëñ Touba lañ ko dénk waxuma waxu may gin ko ko may jaay gin ko jaay moom gin ko moom waaye boo demee ci waxi sëñ Mat Lamin Jóob Addaga nii mi ngi nettali ne am na bis njaareem ginnaaw takku bi nga xam ne bokki Abdoulaye Salim yooyu ñëwoon di set si sëñ bi nee na bi di ñëw ñaari xaaji Buxaari yi lañ àndaale ginnaaw takkusaan lañ gis sëñ Tuubaa ci njaareem biñ ñëwanteeg sëñ bi ba noppi sëñ bee leen wax ne kuntu ba'da salaati maa rasulillahi fa qaala lii inni talabtu laka min rabbi rabbil izzati an yaj'ala alqur'ana wal hadith wa di'atan lak lenn lu mel noonu amul sëñ bee ne leen ginnaaw bi ma jullee takkusaan maag yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo nekkoon fii léegi yonent bee ma wax ne wax naa yàlla na ko jëlal alxuraan ak addis dégg ko Ahmadou Bamba kon yonent bi alayhi salatu salaam moom moo def loolu moo tax bari na tey mbindi sëñ jubaa nga gis yeneen yeneen wax seeni boroom ñoo sakku ci sëñ bi mu tàmbal ko ci biir ay yëfam ngir mu mën a barkeel kon alxuraan moom ndénkaanul sëriñ bi la moo ko moom sëñ bi nee na ba ma nekkee ci géej ga moo ma dimbale fi ne bënn ñu tàmbaloon sëñ Tuubaa ci gabam sëñ Tuubaa daana wax ne bu ma goree dinaa fonk alxuraan mooy kamb gi tubaab yi nga gasoon taal ca sawara ba noppi na béréb bi neex naa toog sëñ bi nee na ma teg tànkam rek ma bëx nee na mboolem téere yi fekk naa ko fa waaye jëmmi alxuraan moom ma wër wet gu nekk foofee sëñ bi nee na gaa yu baax yi ku ñëw danaan ma yoor ma sa loxo tàllal la sa loxo ma génne la ne ma ne leen ndax ndigalul yàlla ngeen ñëwee wala seen ndigalul bopp ñu ne ñu ne dañoo ñëw ngir dimbale la ne ma ne leen dellu leen ci seen yitte ñooñu kenn ku ne na dellu ma xaar borom bi subhanahu wa taala gis nga ca biir wax ja seen Abdul Ahad sax nettali ne ko wax ne amul lu may rek am ko jàpp ci yaari waggam rocc ko ba mu génn mu ne ko doxal ñii dañ lay yàqal ba mu gessoo mu soxna jaaratullahi ma Maryama Busu kon mu ne it téere boobu jaaltu kitaaballah wirdi wa abtaqi bi tartilihi ma shitu idda daa li abba xam ngeen ne njëlbeenam it wirdi yépp la yoroon daana wér di wér du xaadir wér di na ko juróom ñetti at ndax sëñ Mor de Seli xaadir la woon wér di wér du tiijaan wér yooyu awraan la sëñ bi yoroon waaye ci géej gi nag yàlla dana ko bàyyil wér di yëpp jaarale ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam léegi wenn wér di rek nay sa wér di muy alxuraanu karim nga xam ne alxuraan la jël muy wér dem ayatu rabbil wara awraadu huwa lahu fi kulli bi biha asnaal munaajaati kon alxuraan moo nekk wér du cheikhul xadim waaye it ci alquran raditu bil qurani unsa wa dalilun abuduhu jalla bihi ila rahim alquranul karim ci lay moom laa def muy sama wéttal moom laay def it muy sama tegtalukaay nga xam ne amul lenn lu muy tegtaloo lu dul alquranul karim amul fenn fu muy jaar lu dul alquranul karim bihi saala gammi hiina amsaktu huda sa uhdi bihi nafsi wa uhdi bihi sahba alxuraan it ba ma ko jàppee ca la sama njàqare dañe sama ngëlëmte te la jaleñe moo nekk sama jubit ci laay jubale sama bopp man Serigne Touba waaye ci laay jubale sama njaboot kon sama njaboot maa ngi leen di jubal ci alxuraan karim waaye bi muy jaxasoog nasaraan bi alxuraan a nekk gannaayam xam ngeen ne ku ma sa takk ab xare dangay ngay ànd ak mbooloo boo gisee ñu naan sëñ Touba amul morom sëñ Touba kenn la loolu du waxi daanukat loolu day wax ju dëgg ju wér ndax lenn lu mu def lu kenn defaat amut amut ku def lu kenn deful kay di kenn Sëñ Tuubaa ni mu mel bu nu gisaatoon ku nu mel day gën a baax ndax lu suñ Tuubaa yi gën a bari gën a jat kenn képp régler situation yi bu matee fukk ci lay gën a neex waaye yàlla nëmmut ku mel ni moom am mu sàmm lu tax ma ne loolu mooy ku fi mas a xare dangaa ànd ak mbooloo yore gànnaay di jàmmaarloo sëñ Tuubaa nag bi muy jàmmaarloo ki noonam moom ay kënuum ak i fetam ak xeejam alxuraan la ak hadis wa madaafi illati biha anfil aida wa biha yufaariquni anidun qaasidun dikrun xakimun uhkimat ayatuhu mi man yu saxsiw maa yuridul maa kenn du dégg ñu ne sëñ mas naa yorub xeej wala mas naa yorub paaka wala mas naa rey melentaan wala dara ba muy jaxasoog noon ya ñu yor ay gànnaay yi moom xalima daar képp la yor la koy wétti li mooy téeréb yàlla bii di alxuraanu karim mu jàmmaarloog noonu yoo xam ne it kenn mësta jàmmaarloog ñoom delluwaat yonent yi li seeni noon di bon bon noon yi sëñ Tuubaa leen gën a bon ndax noon yi am nañ ay gànnaay booba am nañ ay pexe ami kaso mën a defar lu nekk te ñee ay xeej lañ yoroon ak i jees yi di dóorante ngay dóor ñu di la dóor ngay rayee ñu di la ray ñii nag dañoo am pexe yooyu man nañu la ko def faat la ñooñu ñoo jàmmaarloog Serigne Touba jàmmaarloo googu ñu jàmmaarloog Serigne bi Serigne bi taxul ñu mën a yàq digganteem ak boroomam ci lenn lu muy sakk wala lu muy dox. jëm ci alxuraanu karim mu nekk yitteem ba ba am ci alxuraan loo xam ne day wax ne yàlla na ci man ma di ko nëbb waxtu mu nekk ba du ma ko feeñal xafistu fil quraani sirran wajaba an la azalu abadan muxtajaba lu tax mu di ko nëbbu mooy nee na yàllaa ko sa alxuraan yàllaa ko moom loo alxuraan yàllaa ko donn loo alxuraan awra sukkal kitaab donn loo naa la ko man la tukkal kitaab moom loo naa la ko waaye laqal tukkal kitaab bi sanaa la ko kon donn loo yàlla moo ko donn loo téere bi ba noppi sako téere bi te wax na feneen ne jëkk alxuraan di wàcc laa ko mokkal xam nga kon Sëñ Tuubaa kenn xamul lu doon xafistu ma anzalahul jalil qabla nuzuli bi tartiili ne nii alxuraan tofal toftaloo jëkk muy wàcc mokkal naa ko man Sëriñ Tuubaa kon ana sëñ bi fu mu nekkoon boobu kon loolu day wane leneen ci diggante ak boromam ci alxuraan noonu mu mel ci jëmmi alxuraan xam nga am na ci ñooñ seen jàng alxuraan sëñ Tuubaa moom boo gisee mu yéem ñëpp mooy ñi gën a bari xam-xam ci àdduna bi ak cër yu rëy yi leen yàlla jox ñëpp sëñ bi beneen loo na leen ci ci ci alxuraan. weddam loo yi ci beneen xam-xam bu mën a doon ndax bi mu ñëwee yi mu fekk ay téere mu nekk lu bari da koo wàññi guddi ga taxoon na nit ñu yokkat ca sëñ Tuubaa wàññi ko ba nit ñi man koo jariñoo noonu la def ci biir alxuraan ci moom nga mës a dégg koo xam ne amut lal bu muy tëdd ab lal lu mu rafet rafet lu mu neex neex sëñ bi alxuraan la cay teg ba noppi di ko pomp alxuraan dégg ko pomp par di ko tagg nag yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xam lu kuntu tabibi yaay sama docteur yaa may faj yaay sama sopp yaay sama xarit bu nit ñi tëddee guddi di nelaw muy kër kër yi ci jàng alxuraan alxuraan nekk wéttalam néeg bu muy tàbbi béréb bu muy nekk am na bis boo xam ne sëñ bët la muy jóob daga ne nee na juróom ñetti téeméeri kaamil jëndandoo na ko ci benn bis ku mas a bind alxuraan ci jamonoom boo ñëwee sa àdduna jag naar yi dañuy wax ne ginnaaw sëñ Tuubaa ngi fi loo waay am man nga koo téye ndax ku amul kaamil boo ko yëtee sa aajo faju fanweeri dërëm lañ naan jaayab kaamil ak lu néew a néew a néew waaye nit daana ñëw ñu jël juróom benn dërëmi ngor juróom benn téeméer yi wala juróom ñaar téeméer wala ñetti téeméer ci ay ngordu di la ko jox ngir kaamil alxuraan bi nga bind jëme ko ci borom bi alxuraan moom it may ko loo xam ne kenn mësu ko am waxal na boppam lu rëy ci loolu ci alxuraan ci gaa yu baax ñi niñ koy dégmale di ko wut te moom kat alxuraan sàkku ko béréb bu mu nekk di doxal ci alxuraan te biir alxuraan jooju muy doxal da cay tëggaat mel ni tey jii bu ne aw nag am na am soow wayal nañ ko diw ñor génn na ca biir alxuraan la génnewaat loolu te mooy xasaayid yi nga xam ne bari na xasida yoo xam ne boo koy jàng dañuy wax ne mu xayyad bi ayatil quraan yi alxuraan ni mu ko bëggee di ko jàng noonu la jëlewaat alxuraan topp ko par aaya am na ci yoo xam ne par baat am na ci yoo xam ne par nangam tëgg ko ay xasaayid nga xam ne ci biir leeru alxuraan la génnewaat ngëneeli xasida yooyu waaye mu wasaare alxuraan ci biir waa këram tey jii ku la neex mën nga caa tànn doon na doy rek nga tànn ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ni nga xamee ne nii sëñ maam Baara noonu muy def ci alxuraan al alxuraan ngëneel yooyu mu ci am ndax ngëneel yooyu mu am ci alxuraan wax naa la léegi ne la am na ci awliyaullahi yi ñoo xam ne. suñ boroom jàngal na leen ndax yàlla day sol ab jaam xam-xam ci du ko jàng boo gisee sëñ Tuubaa di wax ne yàlla may mu wax ne mboole euh, mboolem waaytu uluman naafiaatin bi lafdikun mboolem xam-xam yi am njariñ yépp làmboo naa ko man ci baatu kun yàlla may na ma xam-xam boo xam ne kenn du ko jàng nga xam ne ilmu la dunya la yoon wax a wahaba li ilman lam yakun min taallumi wa jaani bi kun yàlla may na ma xam-xam boo xam ne man sëñ Tuubaa kenn du ko jàng xam-xam la boo xam ne rek ci may yàlla yi lay doon coobare suñu borom lay doon ma am ko waaye nekkul loo xam ne doomu aadama da koy jàng ngir man koo xam loolu waxuma la sëñ bi waaye njabootam dañuy wax lu mel noonu njabootam ñiy wax lu mel noonu nee naa la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ku ñuy wax abul yasid al bustaami ak abu ya abu al xaadimi ak abu ali ad dahaq boo demee ci téere bi tudd sifatul awliya da nga ca fekk lii ma lay wax dañuy wax ne nit bu fekkee ne xam-xamam ci ubbi téere la yem bu mu déngat te na aw da wutub lu sa xam-xam bari bari loo bari bari loo jàng te li nga jàng da ngay ubbi téere di ko wax bul diingat te na nga wutim sëriñ ñu ne lu tax ñu ne law lawxul mahfuus ñetti téeméeri lawxu la ak juróom-benn fukk te umul kitab bukk ci te am na ci ñoo xam ne yàlla leen jàngal boppam ca téere boobu da caa wax ne Cheikh Ahmad Tidiane Chérif sëriñ bi ko jàngal alxuraan yàllaa ko jàngal kon suñ borom melo yooyu Cheikh Mouhamadou Lamine di doom yi sëñ tubaa ba noppi waxal boppam ne yàllaa ko jàngal waaw ndax yàlla dafa yem ci jàngal ko yàllaa ko ya yàllaa ma yar kaas yu sell yi nga xam ne góor yàlla yi ca la ñuy naan te mooy dexu suñ borom nga am na ca ñooñ sëñ Tuubaa nee na woon li tax lu leen neex wax ba xaabaabal ci biir pays yi suñ borom yi seen sàll wi képp lañ ca sam sàll wi seeni tuñ lañ teg ci teen ba wala ca déeg ba fees dell ci yàlla ba lu leen neex wax nga xam ne góoxuñu ko sax sëñ bi nag nee na moom teg na ca sàll kawam a kaw na ko secc ba mu fen bi waaw comme jax takk xam ne kaas yooyu ko mandal léegi kon egg fa jafe na te boo demee dana ku uusuka tasqini bi hada bisharati ko uusuka tasqini jooju teen boobu wala diig boobu yenent bi moo ci yóbbu sëñ Tuuba nee na ba ma dikkee dama ko fekk mel ni déegub noor ba ma siggee ba siggi daa mel ni déegub cooroor keroog jalaal jeeg jamaal ji dar na ma ba ku ma waxut ku ma doon xamoo léegi nag Cheikh Mahamadou Lamine Bara wax ne haddayta nii yaa haadiyan allamta nii saqayta nii ka sa safoo rabbayta nii déggal jooju wax ni mu rëy yàlla ma jubal man Mouhamadou Lamine Baara too man yahdillah fala mudilla la ku yàlla ne yoon waa ngi nii doo réer sëñ Baara nee na man yàlla ma jubal haddayta nii day mel ne ni jàkkaarloo haddayta nii yaa haadiyan yow mi aji jubalaate yaa ma jubal allamta nii yaa ma jàngal ndax ca yam rabbayta nii yaa ma yar saqayta nii ka sa safaa kaas yu góor yàlla yu sell yooyee nga xam ne nag nit da cay teg ay tuñoom képp man di man Mouhamadou Lamine Bara maa ko naan nga xam ne kon yàllaa ma yar yàllaa ma jàngal lu tax allamta lii min ladunka ilma yaqinil ada wa shakka xëy na mu ne nga xam ne yàlla day seet ko soob ma may la ko sëñ Baara nee na man yàllaa ma ko may waaye nag yàllaa ma jàngal alquran nag subhaana man allamana alqurana kon yàllaa jàngal sëñ Baara alquran te boo seetloo. waxtu wi muy jàng circonstance yi mu ko fekk da nga xam ne mënta ñàkk jàpp jaar ci sababu zahir bi waaye am na meneen biir mu ci xew ndax bi mu tollee ci war a jàng tawat jooju daloon njabootu sañ Tuubaa gi jëlee woon na ci ak ñàkk dégg ak ñàkk làmmiñ wu leer boo góorloo ba mën koo jàngali nu muy def ba xam li nga wax te teewul mu raw ñëpp moom si xamam Lamin Baara li sëñ Moussa Ganaan day way te jàngaloon arab kon loolu loolu loolu la ciy tegtale kon subhaana man allamana waaye an ba anil baaqi bi suurati naba wa sadriyal yawma bi nuuri imada yàlla ma yakkiiwal duy ma xamal ma sama dënn fees dell ak mbuuti alxuraanul karim moom moomu moo nuy joxañ sëñ Tuuba di wax melo yu mu am saakal xadiim alladi maa mislahu ahadu saakal imaamu alladi maa mislahu ahadu li wax sëñ bi kenn la mu leeral loolu ne sëñ Touba kenn la koo xam ne ku mel ni mu mësta am ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mooy kan nag mu ne mooy kii xam ne najjal muridiina min kaydil maridi fa haazu la wal amala sëñ Baara nee na sëñ Touba moo muccal nit ñi ci seytaane ak i pexeem ba kenn ku ne la nga bëgg nga am ko fa su la wal amala lu waaye doon sàkku di ko laaj te amoo ko ak lu waaye doon xemmee bëgg caa jot Cheikh Mahamadou Lamine nee na li tax nga jot ca mooy Serigne Touba bi sëñ Tuubaa moom mu ne kon moo moom la mu ne nag ni meloon fi llaahi su shiddatin xaasil fuwaadi ala man lam yakun min jamil mu muntasila sëñ Baara ne ne sëñ Tuubaa li muy lewet lewet mësta mën a muñal kenn ku dugoote ne ci li yàlla bëgg fi llaahi su shiddatin ku taroon ci yàlla la mësta mayee ci yàlla dara moom sëñ bi mësta bàyyi dara ci yàlla ci ku koo xam ne nanguwu caa jëm ñan la daan fréquenté ñan ñoo ko daan fréquenté yuhibbu ahlu tuqa ahlul ulumi maa fala yujalisi qurbi ila saadatul fudala waaye xam-xam yi waaye ragal yàlla yi ba Mamadou muy nee na ñooñu la Sëñ Tuubaa doon waxal kon moo tax boo demee ci biir këram fekk fa alquran mel nii ngir téye gim téye alquranul karim yàlla doon loo ko téere bi moom moom loo ko téere bi may ko ko nee na lu ñuy moomee dara lu ne moomee naa ko alxuraan sarax jënd lebal dénk lu ne addiye lu ne jote naa ko alxuraan bu karim ci digganteem sama borom waaye loolu tax na nag moom gi ma ko moom ak jagle gi ma ko jagle sama borom féetale ma alxuraanu karim ndax alxuraan dong laa moom déedéet sëñ Tuubaa nee na mbooleem lu ko baax doon sàkku bëgg koo am man mii la ko yàlla jox. ana nii maa waddahu l abraaru wa laysa tanhu li jihati l ashrar gaa yu baax ni liñ bëggoon bam jar kenn ku ne nga di ko wuti loola man mii la ko jox loola moo taxit am na sëñ si Cissé mu baax ma way juru sëñ Moor sëñ bi jàngaloon na ko alxuraan guddi mooy xisab gudd la ba mu jàngee ba eggal sëñ Tuubaa ne ko alxuraan wal xadiis wa manaafiu dunya wal axira lii alxuraan ak hadiis ak njariñul adduna ak alaaxira maa ko moom man Ahmadou Bamba kon maa moom alxuraan maa moom hadis maa moom njariñul adduna ak alaaxira nag xuyuuru rabbi ilayya sulibat wali bila taxarurin xat ju sibat sëñ Tuubaa ne ne yiwi yàlla yëpp ngëneeli yàlla yëpp baaxi yàlla yëpp yàlla wommat na ko ci lu dul jox ma ko man sëñ Tuubaa ak woru kon yiwi baax yi bàyyi ko ci borom bi jëm si ci man moo tax sëñ Tuubaa mën a mbaa yàlla nit moo tax mu mën a tibb ci lim am mën a jox nit moo tax jëmmi sëñ Tuubaa sañ a wax benn baat dara loola wéy te ñi ko fereñkaate woon nekk borom yi xam-xam nekkuñu woon ay nit ñu ndaw ay yu yàlla yu mag lañ ñenn ñi daanan atte woo ca yëf ya di fekke pay ba ak ba te xam nañ kuy sëriñ Tuubaa defe naa machar soriwul fii Cheikh Ibrahima Jub al machar yi doy na misaal lim misaal ci sëriñ bi rek jàngale ko doy na cheikh bi la ma jóg dane la fi xadarati liqa falam yakun qaa'ilun tamma qaa'imun bada baynahum shamsan wa hum kawaakib wa nuuru nujuumi layli bi shamsi afi nee na xadara ba fa pii yu góor yàlla yi nee na buñ fa daje kenn du fa taxaw kenn du wax ñëpp toogi ni kuy julli la ñuy toog kenn nay taxaw kenn nay wax muy Cheikh Amadou te dégg nga sëñ Sàmbay rahmatullah alayhi nee na buñ teewee ci xadara ba ku sa tuñum kaw wàcc ci sa tuñum suuf raf képp te du ndigalul sëñ bi ñu wékki sa tawhiid te kenn du ci man dara xadara kon gaa ñi xam nañ ñoom kan mooy Cheikhul Khadim moo tax mas naa wax sëñ ma bañ gi moom sëñ Tuubaa na ko baa jàpp li ngeen di wax gis sa bopp baa jàppoo leen ne du ma dal gis sa bopp ñu ne ko am ah, Mbàkke yow gis sa bopp nu lay dale mu ne di ma tudd di tudd nit ma sañoon rek saa taxaw fu ñu may tuddee di tudd nit ma sañoon rek saa taxaw lépp leer am na ci mag ñi ku ma sa ñëw nuyu ko sëñ bi ne ko ba dara naqari na ko Mbàkke dafa jébbalu ñu ko sonal ko mu dem ba ceex gi ñëw barke bi ñëw mu sëñ bi ne ko ba dara naqariwu la mu ne ko Mbàkke leen lekk ma metti tudd génnee tudd tudd ñeneen mu ne ko matu ko de kuñ may tudd de dañoo jataay ba dadul benn ker ga di jenn bu jataay ba dee benn ker ga jenn mu génn ci xel yi génn ci xol yi ne ko ba yomal am na kon bu boobaa la ñuy xam lan mooy dayoom moo tax ku di wax sëñ ma jëmmu sit la sëñ ma jëmmu ku ràññiku la defe naa am na xat mu boo xam ne sëñ bi joxoon na ko sëñ ma jëmm sëñ ma jëmmu mas nay sotti sëñ Tuubaa muy jàpp ci njëreem ba yàgg mu ne ko xindeet na ko ma jëmbu mu ne ko mbàkke mu ne ko yaakaar yi kenn ku ma yaakaar du tas yowmal xiyaam mu ne ko alhamdulilah mu ne ko ngir yowmal xiyaam gënu jëm bu yàlla teewee rasulaay teew jàmm ñëpp teew mel na man képp maa sañ na ñok na yàlla loo ma digal def naa ko musumaa def loo may tere jéggalal jàmm ñi ku dul man sañoo ko yowmal xiyaam kon noonu mu mel ci wéetal borom bi moo ko may ak liggéeyal alxuraan ci tool bii nga xam ne bi muy dem ci géej giit mbooti alxuraan yépp mu dajale ko ba egg ci ne quraanuhu xifzi wa kanzi abada bihi uzaxzihul ada ay subada mooy sama denc mooy sama ndàngam mooy sama ndàngam ci alxuraan lay dàqee yépp loru bàyyikoo fi béréb jëm si ci ban Cheikhul loolu melal la yoo xam ne dañ koy jàngale sëñ bi jàngale ko kon nag alhamdulilah doy nag cant dëkk ak sëñ Tuubaa nag cant bokk ak moomum réew doy nag dégg turam doy nag cant dafa am naar bu mas di tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yàgg suñu borom na ko demal tagg Ahmadou Bamba daan na ko maa ngi lay yóbbante ci moom nag nee ko ku jamonoon teeg moom nangul ko ma tàmbal ko àjjana naar bi ñëw na sëñ Tuubaa sama borom ma yebal ngir ma tagg la waaye nee ku jamonoonteeg yow nongol la ma tàmbal ko àjjana sëñ bi këf kayit yi naar bi yoroon na ko li ma naqare ci wax ji mooy nëbb gi la saa borom nëbb saa digganteeg moom du ku ma jamonoonteel ku dégg turu Ahmadu mu neex la yàlla jéggal mu neex yàlla jéggal kon moo tax mu sañ a mu sañ mu sañ a def la ne xoola biir njabootam gi kenn ku nekk la nga am Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mii xoolal jagle yi ko sëñ Tuuba jagleel xoolal ni mu fonkee sëñ ni mu doone benn mboole mboolem mag ñi toppoon sëñ Touba keroog bi sëñ Baara ganee jamono muy uur bu njëkk bi bàyyi ko Mbàkke Kajoor jaar Daaru Salaam ñëw Touba ñëpp bis boobu la leen sëñ Touba gërëm kon li njëkk mooy moom ngërëm la ëndaale keroog bi mu feeñee jamono la sëñ Touba ne inna dayfa hada qad ataakum bi jamii matalibikum loo leen loo leen doon sàkku gan gi indi am na tawfiix ju toll nii moo feeñee jamono Touba jëkk faa feeñee jamono fii nu denc sëñ bi tey fi la Cheikh Mamadou Lamine Bara ganee jamono am tawféexi sëñ bi gàddul ko boppam it am tawféexi sëñ bi tuddal ko boppam tudde ko Mahamadul Amin nga xam daana wax ne ki ñëpp wóolu moo ma wóolu ki ñëpp wóolu moo ma tudde al aminu léegi nag sëñ Bara lu mu bindal boppam dane xat baana lil xalq maa limnaahu min sharafin man yatinaa yahwi adwaaran wa asraara dane mbindeef fii xam nañ li ma am ci tedd nga man Mouhamadou Lamine Bara ku ñëw fi man ñaari àndaar laa dana la duweel yàlla ak i mbóotam waaye wa man kaana muridan min talamidina kafa rabbul anama aara wa naar ku doon sab teeli bi sukk jox ma sa bopp danga danaa la fegal ñaar gàcce adduna ak àllaaxira ak sawar kon ku doon sama teeli bi doo am gàcc léegi nag loolu bu ko sëñ waxoon te diplôme bi ñëw day yéeme waaye sëñ Tuubaa dafa jox sëñ baara diplôme boo xam ne xaw ma ko ko am faalam yaa Mahamadou Lamine sa tanaalu maqaaman yaqu fi jami am talik وأن جميع الذين معك لا يرون في الدنيا والآخرة إلا ما يسرهم وينفعهم وأنهم يدخلون الجنة بخير حساب فلا تسب في كون هذا من عند الله ورسوله مني وسلام لأنكم محمد الأمين xamal ne da nga am maqaama moom sa kem yëpp la ciy ñee te ku ànd ak yow nag du gis ci àdduna ak alaxira lu may di koy bégloo te mboolem ñi la yaakaar bu ñuy tabbee àjjana kenn bu leen laaj dara yadduxuluuna jannata bi xeyri hisaabi kon loolu loolu du yéemeen waa léegi wala tasuk fi kaw ni hada min indillahi wa rasulihi min nii bul sikki sàkka nag yow ni Mouhamadou Lamine yàllaa ko jox rasulullahi mu jox ma ko ma jox la ko yow maanaam yàllaa ko wax rasulullahi rasulullahi wax ma ko ma wax la ko yow Mouhamadou Lamine kon ngëneel ngëneel yooyu yàlla jagleel Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga yooyu ko yàlla jox ci mu am sañ-sañ ak bëri yërmande ak melo yu mag demal ci waxi Cheikh Mouhamadoul Fadal sëriñ Fadilu dana sëñ baar laalaa yu jaarika fil maydaani min ahadin fil ilmi wal juudi aw fi diini wa nasabi dana ko lef wii di lefu yàlla wi kenn dawandoo wucceeg yow Mouhamadou Lamine Baara du ci xam-xam du ci lewet du ci juddu du ci ak tab yaa ci raw ñëpp yow Cheikh Mouhamadou Lamine Baara daal ko sa buntu ba nag nit ñi mësuñoo dañ ci di fa ñëw ñaar a fay ñëw man kaana za rahabin aw kaana za ku tiit ñëw fi yow nga fajal ko ku ñàkk ñëw fi yow nga fajal ko ci Mouhamadou Lamine Bara loolu moo tax mu bari jagle ak ngëneel yu rëy yi ko suñu borom jagle kon liggéey te teewul la nit ñëpp def la def nga xam ne dafa jël léppam jox ko yàlla jébbal boppam Serigne Touba nga xam ne wajjahtu kulli lil baaqi bila nabat mustasliman lil qadimi l muhbatil qadim te gis nga li nga ciy xamee ne sëriñ bi loo ko jege-jege la lay jariñ mooy joxe sa bopp mu joxe boppam di liggéey dégg naa bis ci Cheikh Abdou Samatum sëriñ Chouaib mu ne xam nga sëñ sëñ Baara moo jëkk a denc soxna ci njabootu sëriñ Tuubaa gi moo tax sët bu góor bi sëñ Tuubaa jëkk a gis Cheikh Mamadou Lamine Baara mooy way juróom fi la sëñ Baara ku bari tawféex la fi la sët bi mu Tuubaa mujj mujj mujj jamono tee doomi sëñ Baara muy sëñ Abdul Xaadim sëñ Mahamadul Hafiz mooy sët bi sëñ Tuubaa njëkk am 1910 la feeñ kon moo ci mag sëñ dégg naa bi sëñ Abdou Samad ne yonent bi ci boppam moo ne sëñ Tuubaa na Mouhamadou Lamine denc na Mouhamadou Lamine Bara denc te boobu ma nga sa bi moo tax bi bi bi mu amee ndigalul jógee sànnoos it am ndigalul ñëw Mbàkke jot te moo dàq way ñëpp sëñ Bara moo dàq way ñëpp fi ne ku dul sëñ Tuubaa rek moo la ëpp lu mu bind ci yoon waaye xoolal tey sëñ baala fi ne bu bëggee wax ab kot bëggee wax ab dëkk xoolal bi ko sëñ bi ne jógeel Mbakke jógeel Sànna Sànnoosi dem Mbakke Kajoor fi ne tey loolu xoolal bi mu koy way ni mu ko tënkee addina lii nga xam ne andi na ndigal li addina lii mina Sànnuusi bintiqaal ila madinatin laha Mbakke yu xaal xool ni mu jommale jàng jàngkat yi moo tax bu ma gisee ñii nan jàngi sëñ Tuubaa te bàyyi taxawaalu nan jàngi sëñ Tuubaa te bàyyi li boo jàngee sëñ lépp ngay xam lépp ngay man loo bëgg xam ko sa dënn leer sa xol leer xam-xam wàcc ci barke wàcc yow boo ko deful di di di di nekk fii di am yooyu quelqu'un it gis nga dégg arab moog dégg njaago képp ak saraxuleeg bambara séeréer la yem aw làkk képp la te li sëñ Tuubaa mu ne kataballaahu tabaraka wa taala an kaadiba yadru kallamahu llah bi lisaanil arabi takliman lam yusbiq ila misliha wala yusbiq ila misliha loolu kon bu dee dégg arab xoolal lii addina lii addina lii jox na ma ndigal mina sanuusi bintiqaal jox na ma ndigalul jóge sanuusi fan la ma jëme ila madinatin laha maa ngi ñëw ci dëkk ba nga xam ne mbakke yu xaal mbakke kajoor lañ koy wax xoola woo way ni fees xoola woo way ni neexe te xoola bu lay jàngal sëñ Tuubaa xoolal keroog bi sëñ Touba bushraaki yaa ardu Touba gi xoolal ni mu neexee keroog bi sëñ bi ñëwee Touba muy tagg suufu Touba bushraaki yaa ardu Touba nilti yow ma ala kulal bilal bi si ku la yow daal suufu Touba maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay gërëm bisub tey bii de suuf yépp kawe nga leen lu tax nga kawe leen mooy gan gii tàbbi seen biir tey muy sëriñ Touba daan na ko nag bi mis ne day fi galam tasor bi xeebeleen gan gu mel nii menn réew mësu koo am yow rek yaa ko am yow Touba te ku ko am nag doo ko nu ngoo wecci mukk muy Seexul xoolal suuf soosu ni muy tatagale suuf ci am gi mam Cheikh ma Cheikh li ko Cheikh Mamadou Lamine Bara jàngale ci wax suuf si ne ko am nga kon ginnaaw jëmmi suuf si ginnaaw suuf si moom moo am Sëñ Tuubaa te kenn amu ko te suuf su ko amoon doo ko soppi kon nun ni am Sëñ Tuubaa nañ ko téye bokk yi billaahi wallaahi tallaahi barkeb Sëñ Tuubaa ku jàppul ci sëñ jàppoo ci njàngaleem sëñ bi royoo ci njàngaleem sëñ bi nekkoo ci liggéeyam sëñ bi sa dund gépp da koo sànq dadul dadul sëñ bi problème bi mooy dadul yii yii da koo taxutoon a ñëw sëñ Touba ñëw di xëccooy dëkk ak xëccooy taalibeeg ñu naan sëñ beeg ay mbooloo bu ko taxoon a jóg gis nga bi mu jógee ci géej gi ba nekk ci tubaab bi dane ko naa la takkal gadaay bo gara gara midaay boo xam ne Afrique gépp yaay doon njiit li kenn duutu fi yëkkati lislaam te ñëw ci yow mu ne leen matu ko palu doomu aadama day folliku ba leen maag yàlla bis dana ñëw ma yilif ñëpp te duma leen natt anamu tey jii dëkk bu mel ni dëkkam kenn amu ko muy Tuuba tey jii waxuma kenn waaye sëñ maam Baara Mbàkke mi li mu jëfal alxuraan ponkal ya nga doon gën a naw di leen dendaleeg sëñ Tuuba bi lay amuñu woon daara yu mel ni jooju uxuma ñeneen di lim lim mokkalal ci ndaw ci daara bari na koy tudd mbooloo di ko topp mu ami dëkk di karang-karang yi mokkalagul lu toll noonu ba maanaam ab dëkkam ak ñoñam amuñu bu dajale woon seen dund gépp mokkalalul alxuraan lu toll ni sëñ Maam Baara mokkalal alxuraan boo ca duggoon nag ci laaj kaamil yu bind moom problème moom doy na ci sëñ Tuubaa moom jiitu na nan ko jàpp te bañ a déng déng te doon ay taalibe warmal sëñ bi waggar ñooñ sëñ bi liggéeyal sëñ bi li may jeexale mooy li may jeexale mooy sëñ Maam Baara xam ngeen euh, sëñ Galas mi xam na ne tey dañ ma siif ah ndax sëñ bi man bu ma wooyee duma mën a wax déet dama ko naw looloo tax dama ko naw lool te li may wax yàlla mii ma tiim xam na dëgg la sëñ Tuubaa yi xam na ne dëgg la te man mii ko wax man man Gana personnellement xam naa ne dëgg la ndax man kenn defaluma dara lu dul sëñ Tuubaa léegi nag bëgg googu ko bëgg moo tax kuy wane jalooreem ci ne amul morom rek danga may neex mooy mooy lii sëñ Mame Bara def di jàngale di yar di defaru nit ba noppi loolu nekk liggéey boo xam ne ñëpp la waroon ni ko Cheikh Mountakha waxee léegi rek kon jàngale googu ba amee tey yii kat ndigal ak jëfe wane na lu ne bari na tey ko mën naa jéem a jóg jëm ci alxuraan waaye lam cay séentu mooy lu teew te mel na ni njëlbeen nga metti woon ma mokkalal kenn nit alxuraan rek li ci nekk jàngal kenn nit rek moo xam li ci nekk kon nag sëriñ bi yàlla na yàlla guddal sa fan nii la ñuy doon ne sëñ Touba sëñ Touba ku ca bokk da wane njàmbar ak fit waneew doxiin waneew melo moo la ciy dimbale ndax lii lii boo demee Touba boo demee feneen nangam nangam nangam loolu lépp li muy tegtale mooy jëmmi sëñ bi ay ndamam daa war di feeñ waxtu ne te lii daa bokk ci feeñal waxtu yi ndami sëñ kon nag bu ma ñëwee ci dëkk bi yow yaa tax ma ñëw fi damaa naroon a bàyyi ba dog Tuubaa ñëw bi ma sëñ Fallou waxee fekk bi ñu déggoo ma ne dinaa ñëw dog seeg yow am na jataay bu mu war a def Tuubaa benn waxtu ma ne la dimbale ma ma ñëw noo ma ko bëggee woon ni nga ko defee xaw ma man defee naa ko ni nga ko bëggee yow waaye man ni ma ko bëggee woon yow ni ko defee te loolu lépp ci organisation la nekk fi ne man damay damay natte nit gis nga nit day nos mbiram li ma gën a contre mooy murit amul programme loolu mooy murit baaxul rek programme murit da ko war a am murit da war a am programme sëñ Tuubaa boo mutoon programme bi mu demee ci bu dikkee day wutaati dëkk ak kër tax mu installé lool bi mu ñëwee fi mu war a dal dal na fa ñi ko war a gàttandu gàttandu ay dëkkam ñëkku ay seexam di wéy bi mu fi bàyyee njabootam ñu murit day am programme waaye murit amul programme dara yoon wi yooru organisation te faussé rendiwu moom dadu dadu dadu dara lu may màndargam nafiq kenn loo wax doo ko def bu ñu waxee nga ne léegi-léegi nit yóbbu la ci dëkk téye la nga ne ko min wi mu téye la ba quatre heures loolu nag man dama cee mus lool bu dee ñii may seqali jàng nga xam ne du jël avance bu kenn sama oto toujours la ma ci def gasoil bu ma ñëwee mu naqare bi nag ma taal ñibbi comme joxoo ma avance doo ma laaj dara moo tax bu nu waxee dama naa baax na danaa ñëw bu ma gisee dala rek na wëlbati ko dem ñibbi boo xam ne ah man de ginnaaw ñëw naa te nga waxoon kii dal gi melaw yi alhamdulilah yal yàlla guddal sa fan lii de moom bëgg naa koo jàpp lii nii. bëgg ko saxal sama diggante yow loolu laa ñaan yàlla parce que koo saxal sama diggante yow bis bu xat la waaye nii laa ko bëggee ci sama diggante yow waa topp bi maa ngi leen di sant yéen bu baax ndax it defe naa bii bi bi ginnaaw jataay yi balee woon ca Ndakaaru bi mooy conférence bi jëkk ci ma génn ñëw toog ci jataay yi am ci mbégte nag bu baax yàgg na jaar nii di gis dëkk bi te yàlla may ma taw yi ma ñëw ci biir dëkk bi loolu sant naa ci yàlla sama borom di leen gërëm it ci dal gi ak yar bi ak teggi ndax kat mbooloo mu toll nii daje te nekkuñu fi naan déglu leen ak toog leen ak dal leen alhamdulilah waaye nag ku am lu jafe it lu kenn amul boo ko amee sant yàlla te mooy sëñ bi bari na tey ñuy laylatul xadr sama classe gi fa nekk di loo ko wax ak i caméraman képp waaye gis nu fa leen ni sëñ Tuubaa waaye ndaw ñu mokkal alxuraan ne war a tari alxuraan ci guddi gi guddi gi la alxuraan wàccoon surtout Tuubaa ne fi kon sëñ bi maa ngi leen di sant borom yoonu géej gi nag ma jégal bu ëllëgee ma ñëwee waxtaan wi ma jël ko def ko yoonu géej gi ndax yoonu géej gi moom daa bari ay bruit man mii daf may sonal. andil ma ci ay kalan-kalante yow mi ko demandé mën na laa yóbbee fi ne les ci lay tuxante man ci bañ a xam lu bari dama ko mas def dem ay jàng ndeysaan ñuy aalu mu doonati gars yi ma kennal sëñ bi teg ko ca kaw sëñ tubaabu morom ma ne leen te ngeen ne bañ ci yii ngeen di a dugg ndax man xam naa bu dee rokko su xanaa defe naa man gën ma kékki ci sëñ bi dana boo leen waaye ba ñu ñu naan noonoo baax waaye seen i seen yëf yëggut de mooy mooy mooy lii ndax ndax ndax ndax yoonu géej gi mooy programme sëñ bi te kat li gën a yéeme mooy li muy yàgg yàgg li muy metti metti borom naanu ci mbuusum ndox moom ah xéewal yii koor gi nuy woor naa ci nett li benn benn diggante koor gi ko di ko fekk gabon bi muy taalif yaa xayra day amul ndogu amul xëdd day woor ba ngoon xobi garab lay dem dagg suñu su jël ko naan ndox mi yàgg garab bàyyi te téewul muy tatagal weer wi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban bil aalamiin am na ci koor goo xam ne seen saatu la yor mooy demal boppam ba ca jaba jaay ko jënd ko ab xaal kuppati ko di ci dox am na koor goo xam ne benn reenum ñëm bi képp la di ko ngarañ amul lu mu dogi kooram te tey jii léegi ku daawut dog amoo loo doge aka wuteeg suñu ndogu lii nu dogoo tey ak conteneur yi mis wi ak i ganaar ak i nen ñu di takk di yit sab xalifa te yow daawoo doge lu mooy eh, xobi garab ak mbuus gu sedd naanu ko ci moo tax bis nga wutal suñ tubaab morom dee ko gën billaahi te koo koy tëkkaleel xamoo ko xamoo sëñ bi li benn naar naan xawaariquhu yakfika minha rujuuhu ala xayra xaalin baxdama raqiba albaxra nee na boo xamul ci sëñ Tuubaa dara rek xanaa dana doy ne moo demoon ci géej gi si jàngkat histoire yëpp déggagul yonent bu julli ci géej waliyu julli ci ak dex déggagoo ko sëñ Tuubaa képp moo kàbbar ci géej kàbbar ca duus ca delluwaat ca gaal ga goree la teere noonu yi digal gaal ga ahmadu rek sëñ Tuubaa képp nga gis mu ànd ak i noonam samaaniya xajajin juróom ñetti at yu manqué tuuti ci géej gi du fa dox du tiim du juyoo boromam du sël te du dellu ginnaaw te waxtu wun xëy suba ba ngoon di jot lu fi jëlee bakkanam képp ci la ñuy yenn mu sax ci seen biir ba joggi leen ñoom ñëpp xëy na baal naa leen moo tax amul morom liggéey liggéey bi ba mu ñëwit mu sedd ñëpp ba muy ñibbi si ban sëriñ ci la andaale ijaal rujuuni ila xawmi saadatana wal yow ma jamal xalqa niirana bu ma delloo ci réew ma képp ku yaakaar rasulaay ne sa texe bu yowmal xiyaamee na nga mucc sawar kon dundam gépp ci loolu la ko teg kon yàlla yàlla defal nu tawféex defal nu ndimbal maa ngi leen di jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah